bawol info point net moo leen di jox xibaar yu gaaw te wóor yu xarañ te mën seen liggéey bawol info point net le portail du Baol sur le web. Baol info ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal. dali nag jàmm ñu ànd xëyër yéenekaay ñu xëyandoo yéenekaay gi de ñu xëy fekk fa Mamadou Lamine Diallo bu tekki nee na assemblée nationale dañu ko war a tas ndax nekk ci réew mi di wax ne a def mooy yi xëy di ñu xibaar naan ñu bu ngeen yeewoo ci réew mi ñu ne leen tas nañu assemblée nationale bu mu leen bett ndax ñi nga xam ne jamono ji ñoom la ñu dénk mi maanaam bu seeni peex joyee assemblée nationale dañu koy tas yéene gi di Sud Quotidien xëy duñuy xibaar naan ñu tey ji ci àjuma ji la plénière bi ci assemblée nationale la ñuy modifier règlement intérieur bu assemblée nationale ngir Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal mën def déclaration politique générale Mamadou Lamine Diallo bu tekki ne ëmb ñi lor woon ci événement yi amoon ci réew mi jamono ji nag ñoom seen bëgg-bëgg mooy ñu annuler li nga xam ne mooy loi amnistie bi su ci giraaw mi a xam kan ak a jël ay daan lal ko ci seenu ndodd waaye nag Birahim Seck bu forum civil ak ñi nga xam ne ñoo ko defee ñi nga xam ne ñoo ci faatu ak ñi ci gaañu loolee nag daal naax saa yi ci boppam mu wurta am ci réew mi jamono ji li war a am mooy loi amnistie bi ñu daal koy dakk dakkal yéene kaay gii di point actu xëy duñuy xibaar naan ñu Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne fan yi ñu génn waajuram góor moo génn àdduna Amadou Ba dafa demoon di ko jaale jee waaye nag dégg na fa ay dëgg ndax Abdoulaye Diouf bi mu jëlee kàddu gi nee na ko Amadou Ba yow ak président Macky Sall ngeen askanu Sénégal ay leeral yoo xam ne war ngeen koo leeral ci seen diggante ak élection yi nga xam ne moom la ñu génn li ci xew bëri ak les suuxul yépp ji jot na ngeen ko muy Amadou Ba di Macky Sall ndax da a wàllum urbanisme daan nay wax ci gerew bi nga xam ne agent collectivité locale yi ñoo ngi koy gerew nee na bi ñuy gerew gerew la boo xam ne teguwul fenn te jamono jii li mu bëgg moom ministre bi maanaam mooy ñi liggéey ci collectivité locale yi bàyyi gerew bi ñuy gerew yéen kay gi de la témoin xëy du ñu xibaar naan ñu njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Faye ñetti fan jàpp ñeenti fan ci weeru sàttumbar dina dem ci diwaanu Chine moom njiitu réew mi bala muy dem ci diwaanu Chine war naa dem ci diwaanu port lijjanti jamono ji girawali gi nga xam ne ñoo ko fay wax yéen kay gi de la Écho ñu xibaar naan ñu Waly Diouf Bodian mi nga xam ne mooy directeur xam ne moom la a baax doxalinu Waly Diouf Bodian ndax ne nañu dafa am benn marché boo xam ne port ñoo ko joxe waaye nag syndicat yi li si li ci gis mooy marché boobee dafa am conflit d'intérêt conflit d'intérêt bi ndax ki nga xam ne moo gagné marché bi kookee conseil technique la directeur général bu port di Waly Diouf Bodian maanaam ab conseil technique am moom Waly Diouf Bodian moo gagné marché bi te nag loolee ñi nga xam ne ñoo syndicaliste yi nee nañu dafa violé article 80 code des marchés publics yéenekaay gi dale si ko syndicaliste yi nee nañu marché boobe nag bi ñu ko joxe ki nga xam ne moo njiitul commission de marché ak ki topp ci moom di adjoint bi maanaam dañu leen a écarté bi ñu joxe marché bi yéenekaay gi nee na liggéeykat yi nekk port jamono ji nag mer nañu ba mara détaillé mer nañu wàllu juf baña te boo muy tuule ci gerew la ñu jëm yéenekaay gii di Le Quotidien xëy di ñu xibaar nañu jub jubal jubbanti bi nga xam ne ñoo koy wax ci réew mi war nañu ko yóbbu port ndax port la nga xam ne moom dafa syndicaliste yi gis maanaam muy dëngal wengal yéenekaay kaay gi di Sud Quotidien xëy duñu xibaar naan conseil des ministres bi nga xam ne moom la génn njiit réew mi di président Bassirou Diomaye Faye daat nay woo ñi nga xam ne ñooy tas ko xabaar yi ngir ñu amal waxtaan ngir ñu amal dialogue ginnaaw journée sans bi nga xam ne presse bi def nañu ko ci réew mi ministre bi ñu dénk wàllum communication ci réew mi jamono ji nag li mu bëgg mooy xam yan organe de presse moo am ci réew mi ba ñu mën leen a woon Bassirou Diomaye moo Ousmane Sonko bi ñuy campagne bëri na ay digge yoo xam ne digge nañu ko waaye digge bi nga xam ne moom la ci askanu Sénégal gën a bàyyi xel digge bi nga xam ne moo gën a intéressé askanu Sénégal mooy reddition des comptes maanaam ñi nga xam ne ñoo yoroon alalu réew mi ci ban anam la ko yore woon ñoo sàcc ñoo xam ne ñoo ngi wax ne parc financier bi nga xam ne installé nañu ko maanaam mën naa topp ay ancien ministre ministre yi nga xam ne ñoo fi nekk jamono ji sëx maanaam mën nañu leen topp yéene gi dala ko du cee xëy duñu ñu njiitu réew mi di président Macky Sall jamono ji mbaadu nag ak tumuranke daf koo dugg ndax amul yenn privilège xam ne ne jox nañu ko Macky Sall aucun privilège yéen gi nag nee na Macky en tant que ancien président waroon nañu ko jox sécurité waroon nañu ko jox ay collaborateur maanaam ay assistant ak yu mel noonu waaye amul lenn loo xam ne jox nañu ko Macky Sall en tant que ancien président yéen kaay gi di enquête xëy duñu xibaar naan lu jëm ci wàllum ceeb bi ak diwlin gi ak suukar si ba léegi am na ñenn ñoo xam ne wàññiwuñu ko te nag moo ne ñaar fukki fan ak ñeent ci xam ne moom lu ñu génn dafa am benn projet waaye nag ba léegi am na ñenn ñoo xam ne respecté wuñu ko maanaam am na yenn boutique yoo xam ne ba léegi wàññiwuñu ceeb bi wàññiwuñu diwlin gi wàññiwuñu suukar see yéen kaay gi di enquête xëy duñuy xibaar nañu ni bees ni contrôle te amul benn contrôle boo xam ne jamono ji am na ci li am ci journal bi di Vox Populi mooy accident bu metti boo xam ne moo xew diggante Jurbel ak Mbàkke fi nga xam ne moo tolloo ak nduloo ak xuru Mbàkke yéen kaay gi na juróom-ñeenti nit ñoo si ñàkk seen bakkan journal bi nee na ab camion ak minicar ñoo mbëkkante yéen kaay gi de la témoin nee na mbir mi ni mu demee am benn famille boo xam ne ñoo xëyoon jóge Jurbel dugg ci minicar dem ci diwaanu Touba ci Daaru Marnaan ngir ab dëj ba ñu jógee ci dëj ba war a delluwaat Jurbel bi ñu dikkee nag ba tolloo ak xuru Mbàkke ak ndula si la ñu bëkkante ak camion boo xam ne ma ngi jóge woon Jurbel yéenekaay gi nee na benn famille la journal bi nag nee na bëri na tamit ñoo xam ne am nañu ci ay gaañu gaañoo yéenekaay gi di Vox Populi ak L'Observateur xëy duñu xibaar musiba ma bu kumba gu rëy goo xam ne moo xew ci diwaanu Thiès yéenekaay gi nee na benn jakarta man moom la ñu fa agressé ba daal di koy rey waaye ne ki nga xam ne moo ko agressé daal di koy rey